ma wax la màggal gi yàlla màggal ne ku ko màggal danañ la màggal li Bàmba woote ne buñ ko wuute te digle ceeti bernde di magal 18 safar mi ku ne ci réew mi na xam ne moom mi rekk di magal Italie xam na France xam na Allemagne xam na lii moo di magal waroon na kon tey ñuy gonta kay xëy di dajaloo kay waxtaane magal murid yi jugleen waaji safar yeen ci bernde ak ñaan ñu jekku màggal murid yi jugleen muy aw aw ñam wa dokoy aw ci barke màggal ñu yóbbu ñam yi ci hôpital yi ak prison yi ci barke màggal sëriñ bi aw ñam la digle kuy dem na yóbbu aw ñam bernde ci màggal képp ku màggal bis bi di màggal màggal gu dëggal dees na la màggal fonk ko moo war jàpp ko moo war ku ko deful warum ki woote màggal bamba danoo moom am nu ku dul moom nañ toppi digleem te fonku màggal bamba danoo moom am nu ku moom nañ toppi digleem te fonku màggal fépp fu mbooloo dajee di booloo nañ jéema booloo waxtaani màggal gat ca gënu rëy nga nekk fii xëy ba bis bi doon tey ngay gan ci màggal nekk fii ba bis bi doon tey ngay gan ci màggal loo mën a rendi rendi ko bernde màggal gi bernde mooy mbir mi berndeel bul ne jigéen la te ne ndaw la ak sant yàlla bawul ko am xel bu la jigéen te bu ne ndaw ak sant yàlla bawul ko am xel te sant yàlla ak jaamu yàlla ak daw lu bon la rekk di màggal sant leen yàlla mi may ma lépp te jox ma bis bi di màggal ku sant ndolleen di ñëw te ndolleen nu yàlla dug neen nañ fonk màggal ku sant ndolleen di ñëw te ndolleen nu yàlla dug neen nañ fonk màggal dëkk Tuuba na fonk bis ba yaatal xolam ba ganam ña ku dëkk Tuuba na fonk bis ba yaatal xolam ba ganam ña fay dal te wàcc lal te génn neegi dugg ci waañi te jéem te wàcc lal te génn neegi dugg ci waañi te jéema suural lépp lu saf neex wuti ko tey rox soom dax ak lëx fajaru màggal lépp lu saf neex wuti ko tey soom dax ak lëx fajaru màggal ataaya naana ko mag banaana ko kaana naas waajal ko أتانا ومقبنانا كوكانا ناس واجل كمقل كفاكي سوكر فانتا كوكانجر luy dem ci ay biir waajal ci magal ñu af raay xar defar ko bam ñor di dana lay war moo baax ci magal wutal ginaar saaf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 هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة